mbokk yi safoo di seetaan ak déglu TFM TV ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ju tay tënkinu xibaar yi gëm yàlla juuf ci àddu gi euh, Alassane ci technique bi. ñaar fukki at ak juróom nekk anniversaire Parti de l'Unité du Rassemblement ñu doon ko amal nag fële ca stade Amadou Barry bu euh, Guédiawaye boobi la parti nag di Parti de l'Unité du Rassemblement daal dinañu def amal nag li nga xamante ne nii moom moo di mobilisation bu takkoo takku euh, ki nga xamante ne nii nag moom moo di njiital boobi la parti di Serigne Moustapha Sy daal daaw teewul nag ki nga xamante ne nii moo ko fa teewal moom moo di Cheikh Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine ak yenn ci leader parti de l'unité et du rassemblement ci fàttali rek nag euh, boobilee daje ki nga xamante ne ni moom moo di Ousmane Sonko Ahmed Aydara ak Malick Gakou daal dinañu euh, ñëwoon nag ci boobilee euh, meeting ak yeneen ci leader yu yeewi askan wi ki nga xamante ni nag moom moo di président du conseil départemental bu Kër Massar di Babacar di Babacar Gueye daal dina amal nag li nga xamante ni moom moo di mobilisation bu takko takko ñu wax nag ci ki nga xamante ne ni moom moo di eh, njiital CNRA di Babacar Diagne moom nag mi nga xam ne rek nag eh, li waxal ñu coupé signalu Walf TV eh, bokk nag bokk na nag ci li nga xamante ne ni moom moo di wane bi nga xamante ne wane nañ ko manifestation ñu doon amal ca Mbàkke di parti Pastef doon amal nag fële nag ca Mbàkke ci fukki fan ci weeru février loolu nag mi ngi ko xam ne rek nag ci déclaration bi mu sekkaloon nag suñu naataangoo ya nekkee foofu nag ca euh, Sénégal ci fàttali rek nag Sénégal dakkaloon na li nga xamante ne ni moom moo di signal programme Walf TV ci diiru juróom-ñaari fan. coalition bu mag boobu di ànd gësëm boobule kuréel nag euh, daal boobule kuréel euh, boot nag li nga xamante ne nii moom moo di ñu yëngatu ci wàllu santé ak collectivité territoriale ñoom nag xamle nañu nag euh, dinañ bank seen loxo lu tollook ñeenti fan loolu nag ñi ngi ko xamle nag ci gaaw gi ñu génn ndax nag ànduñu benn yoon ci ndogal yi nga xamante ne nii moom la ñu jël ci seen ay revendication ñu tëjee ko nag ak li nga xamante ne nii moom moo di euh, tàggat euh, yaram attaquant sénégalais boobu nag di Sadio Mané daal dina doox euh, daal dina doox li nga xamante ne nii moom moo di ay entraînement wam ci di beex gi ñu génn bu ñu sukkandikoo nag ci Bayern Munich TV. mi nga xamante ne nii nag moom nag euh, di Sadio Mané daal dina xam ne rek nag euh, mbégte rek lay àndal ngir euh, commencé waat di nga xamante ne moom moo di ay entraînement wam déglu ni TFM TV ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi jaajëfal Alassane mi nekkoon ci technique bi jaa ngeen ngeen jëf. <laughs>